nañu góorgóorluwaat ci sunuy tariqa léeg-léeg ma wax ne sëriñ bi mu ne léeg mu wax nu ne adduna toll na kam. doxal li nga xam doxal li nga xam nit ban na jóge fale nit mën naa bàyyi koo fale mu réeral la ci li nga xamoon mu réeralal la yow ci biir li nga xamoon sëriñ bi mu ne nag moom sooy doxal li nga doxal li nga te rek nga ci am te rek yow nga ci am te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 sëriñ bi mën a kon nañu góorgóorlu bu baax sëriñ bi mën a nañ góorgóorluwaat bu baax sëriñ bi mën a di dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mën a ñu ngi nayu dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp boole nañu di gërëm alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mën a xam na ne waxtaan wi duñ ci sori waaye ñu dalal gan yi la woon dalal gan yi la woon rek